jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. a waaye itam bu ànd ak njàngale ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte internet jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu fas yéene dikkaat ak yéen ci xibaar yi ñeel jàngoroy coronavirus eh, di covid 19 tey ci talaata fanweeri fan ak benn ci weeru mars ci te ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yi ñu réalisé fukk ak ñett da cee eh, positif maanaam fukki nit ak ñett amaat nañ jàngoro ji ñu naan coronavirus ci fukk ak ñett yooyu benn bi cas importé la eh, nit koo réew la jóge indaale jàngoro ji fukk ak ñaari ay cas de contact suivi la maanaam eh, ñoo xam ne dañoo jotoon saafante ak ñu am jàngoro ji ñu wàll leen ko eh, fukki nit ak ñaarit wër nañ ci jàngoro ji bi ñu leen testé dañoo négatif kon ñooñu wër nañ ñu ñuy xamal itam ne ñaari nit yooyu nga xam ne démb eh, dañu yëgaloon ne seen wér-gu-yaram dafa sooxe woon loolu ba jaaxal ñi leen di fecc ñooñu am na amélioration ci seen état de santé kon bu ñu jàppee bésub tey Sénégal mu ngi ci téeméer ak juróom fukk ak juróomi kaa eh, ci biir eh, lim boobu ñeent fukki wér nañ amatuñ jàngoro ji téeméer ak fanweer ak juróom ñu ngi ñu ngi sous traitement maanaam ñu ngi saytu seen wér-gu-yaram ci l'hôpital taali eh, yeneen xibaar yu ñeel jàngoro yi coronavirus ci bésu tey bile kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr fas yéene la dajale ñi yëngatu ci wàll wi te nekk fii ci Ndakaaru fas yéene la séq ñoom waxtaan ngir ñu tey bu juróomi waxtu jotee si ngoon ngir rek ñu gën a xool nan la gën a mën a def xeex jàngoro ji euh, beneen xibaar itam euh, lekkool yi ak këru jàngalekaay yu mag yi nga xam ne dañ leen tëjandi woon tëj bi dina wéy ba fii ak euh, ñaar wala ñetti ay bés ci kanam lépp lépp rek ngir xool nan la ñuy mën a def ngir gën a mën a xeex jàngoro ji di coronavirus. Amady Info Bilan Covid-19 du mardi 31 mars. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs, un cas importé et 12 cas contacts par les autorités sanitaires. 12 cas aussi sont déclarés guéris et pourront sortir dans les prochaines heures. de santé des patients est Aussi, l'évolution des deux cas graves est À ce jour, le Sénégal enregistre 175 cas confirmés, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Les autres informations à retenir. Une réunion d'urgence est prévue ce mardi 31 mars à 17h avec les acteurs pour définir une approche de riposte spécifique vu la persistance des deux foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar. ouest et de Dakar sud. Pour finir, les vacances solaires qui devaient prendre fin ce 6 avril repoussées de 2 à 3 semaines. C'était tout pour aujourd'hui, amis internet de Djamidji Info.net. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.